vingt ans existence su société bi bi mu nekkee ba léegi vingt ans def naa ko service bi bi may ñëw fii SOEPAL à l'âge de trente deux ans tey maa ngi si su may war a ans lii waral ñuy ñaxtu société bi dañuy liggéey sans pause huit heures de temps dañ koy taxaw am na ñoo xam ne si poste yu nekk dañuy taxaw huit heures de temps sans pause société bi daf ñuy tere julli sooy julli da ngay nëbbutu en cachette dañ doon def trois euh, trois quarts trois quarts lañ doon def soo jëlee sept heures yaa ngi wàcc quinze heures quinze heures vingt trois heures vingt trois heures sept heures du matin il s'est trouvé que ne ñoom ndekk fort longtemps si pause bi pause bi yokku na si quarante cinq minutes ñoom ñu ñuy fay si trente minutes malgré si trente minutes ñuy fay xaalis bi matul ah bés ñoom ñu gis miir bi am ñu ko bind ñu accuse ñu ko accuse ñu ay mbiskit yu yàqu yóbbu ñu inspection yàlla moo mën a atte bi ñu demee ñu ngi fa fekk mu ne inspecteur bi ñu naan monsieur Ndiaye xale bu tuuti xam naa ne soo amee 30 ans fa lay yem bi ñu demee mu àtte mbir mi jox ñu dëgg ñu ànd ak ki ñu naan gujaay bi ku nekk xam nga xam nga ko tudd nga ko dégg na nga ko gujaay bi ànd ñun gunge ñu si mbir mi ndaxte suñu àndul woon ñoom dañuy tegal si ndëgg sërëx yàlla mayaat ñu fa ndam ñu defar PV PV bi ñëw ñoom ak seeni tappale ñu defar si biir PV bi comme quoi que ñun suñu nangoo fay ñu suñu rappel dañ si dugalaale pause bi heureusement ñu am si ñoo xam ne seen jàng xarañ na ñu xoolaat mbir mi liir ko na déedéet ñun pay leen ñu suñu bor mais suñu pause yaay ñu ko de ndax pause kat dafa sa santé da see nekku se wér-gi-yaram da see taxaw donc loolu duñ ko jaay directeur bi xoola pour wan ne la ni mu manager baaxul directeur bi mujjul fenn de ne non non non moom it day defaat amendement est-ce a tu vois ah, mbir mi ñu ne waaw mais ñun ñii fa lañ jëm ñun ñun dèjà ki fay gën a rëy li ngay fayeeku si cent mille franc nga yem am na ñoo xam ne mois bii nii ay soixante soixante mille cinquante sept mil la ñuy fayee ko par weer loolu am fii sooy par waaw ñu weesu ñu weesu cadre boobu mu ñëwaat gën a defal lu gën a yées loolu xam nga lan la def mu ne léegi dama koy def quatre quarts sans aviser les délégués aviser wul personne quatre quarts quatre quarts mooy lan soo ko déggee da ngay dugg à six heures du wàcc midi dugg midi wàcc ban heure it sama kër 18 heures 18 heures 0 heure léegi ñu taxaw si 0 heure bi ndaxte loolu c'est important yow 0 heure bi 0 heure bi mon frère euh, heure de crime la même police su la ramassé daf la war a yóbbu pour identifier la sans badge sans rien du tout subitement nii xel xel am na loo xam ne nangoo ko donc nag ñun ay citoyens sénégalais lañ ay sénégalais lañ. ça pas dire que ne dañuy bàyyi étranger yi ñu ñëw fii suñu biir réew certes adduna yaatu na yaatuwaay goo xam ne dañu war a dugalante mais ça pas dire que ne dañuy bàyyi étranger yi ñëw parce que lu ñuy wër si parce que suñu chimique moo ndaw ñun li ñu bëgg mooy que benn suñu suñu pause ñu fay ñu suñu xaalisu pause bi nga xam ne yoon moo atte ne non dañ ñu ko yaral dañ ñu ko war a fay nañ ñu ko fay benn beneen bi ñu yóbbu ñu suñu trois quarts ndaxte trois quarts bi kat daf am na waxuma sax daf ñoo arrangé euh, tout le temps mais trois quarts bi am na côté boo xam ne daf ñoo dimbali mooy que au moins sax dinañ dem si benn heure boo xam ne suñu njaboot ñu teel a gis ndaxte liggéey kat si jaamu yàlla la bokk mais jaamu yàlla su demee ba sa bakkan bii nar sa yëpp wax dëgg fa yàlla tey jii nii présentement li ñu décidé mooy que tant que ñoom ñu wuñu ñun duñu reculer li ñu passé ne concrètement mooy que taxaw fii taxaw fii ba keroog ñoom revenir à la raison ñu doog a mën a ñu doog a mën a continuer ñu ngi ko tàmbale depuis démb lañ ko tàmbalee ah ndaxte amoon na kaar bu dugg amoon na kaar bu dugg sept heures chaque matin ah, ñu génne leen ñoom ñoo leen génne ah fermer seen i porte loolu nag nit soo ñëwee këram mu tëj buntam kooku nag yaakaar naa ne sa jaan wàcce na si moom mënuñu loolu toog si buntu kër gi toog di leen xaar amuñu ngeen dara lu mel ne xaatim dara jox direction bind nañ bindati bind nañ bindati ki ñaan monsieur Goudiaby bi ku ko xamul dégg nga ko daanaka ñëw na fi sax fi léegi léegi fii la jógee nii amul lu mu waxul même inspecteur bi si boppam dafa ne dossier bi yore naa ko trois mois mais dafa mel ni ne ñi may waxanteel dégguñu ko ñoom nag ñu ngi si seen i tappale ñu ngi seen tappale ressources humaines bi lan la mujj wax nee na rappel bi gars yi fay naa leen ko gars ko ku fi am bulletin wan ma ko ma non bu leen bu leen dépassé si ay euh, wax ju verbal c'est bulletin yi da ngay indi gis kuy dem congé cent quinze mille lañ koy jox congé gars yi waxuma dëgg wala loolu moo am fii léegi nag Macky Sall nee na euh, Sénégal émergent n'est-ce pas mais su fekkee ne système bi su fekkee ne méthode bi honnêtement honnêtement man de màgget naa ba pare pour jeunesse bi nga xam ne à l'âge de vingt deux ans dix huit ans honnêtement lii mérité wuñ ko lii mënoo see jabar am na ay sëy yu divorce man suma jabar nag macha allah chéri ko ko bëgg naa la trop maa lay lancé appel bi su ma joxewul dépense bu doy xamal ne du si man famille bi pareil voilà ay ay lañu la ñuy def jaajëf ah laa tudd dëkk Thiaré Gare voilà